ba ca des it mooy entreprise bi nga xam ne moo yor assainissement bu Touba ndax nguur bi defoon na ci jéego ba tàmbaloon na liggéey bi waaye liggéey bi it xaw naa yéex tuuti ñoom itam ñu ngi ci sonn ñu gën cee def yitte ak taxawaay ndax Touba benn taw la taw bi wala ñaar wala ñett weesu ko waaye dëkk bépp màgg na loolu nag li ko indi mooy ndax bi nga xam ne dafa yéeg moo ko ma ca des it mooy tënk yi nga xam dafa yàqu booy génn da ngay tënk tax ñu ne tënk amul la loolu kon ñaar yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne warees na ko gën a soññi ñu gën cee def taxawaay fexe ba ndax wax nañu ne fi ñu war a pompe ndox mi rawatina fu mel ne njëlaat yi ak ngërëm foofu wax nañ ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne liy itti ko kon loolu góor nañ ñu ngi koy fàttali nga soññi ñu def ci taxawaay ndax màggal yi di Cees motu bi ñaari weer kon fan yooyu waa Sénégal itam wax nañ ne ñu ngi ci ay jéego xam naa dañ ko leeral ak kër yi itam kër yu yàqu yi ñëw nañ fa ñëw wax ne ñu ngi ci waajtaay bi war koo tax loolu itam ñu gën koo yokk def ko équipe yu bari ngir kër yi mën a jàll ndax bu fekkee mbedd yi dafa taal ba doon kër yi ni nit ñi amul fi ñaar dana métti moom beneen boo xam ne itam faaw ñu fàtt mooy forage yi nga xam ni moom lañu manqué nam defoon nañ ko tàmbali ko daaw am na ay résultats yu am solo ndax bari naa foo xam ne napp bi moom fa mu wàcc waaye nag li ci mët a gën a fàttali mooy day mel ne boo tàmbalee booy soo kese am daal kese tàmbalee kese Bachirou Sine Fall rek jafe-jafe jafe-jafe bu foofu la tàmbalee boo demee daa bari na ci njaboot suñu famille ñoo xam ne daanaka kenn duñ seen i gën gën ndax bi noonu la tasaaroo ci dëkk bi moom daanaka xaw naa yaatu kon forage yi bu ñu ci defoon daaw war nañoo góorgóorlu ba defaat lu ko ëpp ndax bu ñu gën a fukk rek xam naa ren ñu génnoon ñu génnoon ci ay daaw ren ñu génnaat dana métti ndax bari na lool ci tari bi ñoo xam ne ku ci jaaxle rek dana ñëw ci man léeg-léeg ñu def ay woro yu ñu jeex ñu ne am nañu loolu fukki kër yoo xam ne seen kër génn daanaka mënatu ma ko kon